président de la république ci bopam ci allocution bu euh, chaque année 31 décembre tuduna wal li jëm ci autorail euh, bi hmm? ba koy def ci interview am bi bu muy interview journaliste président ne mom sa xamna né yu nga xamné fi tay ñi ngi ci amal na solo trop donc euh, bi bi euh, Dembrek, rek lañu joggé ci atelier national biñu don def Novotel ci Dakar di ci saytu lepp li dem ci autorail bi ñu toog ak euh, ministre des infrastructures et du désenclavement di Omar Youm avec ak euh, secrétaire d'État au réseau ferroviaire di euh, Camara ak représentant wu institution Sénégal yëpp ñu am ci liguey bu am solo euh, saytu lepp li jëm ci autoray bi li nga xamné mo téré won autoray bi euh mëna teguwaat ci yoon bi euh li ci gëna a mo moo doon suñu discussion suñu waxtaan yi ñu amon ak maliens yi suñu mbokku maliens yi lool yëpp nak ñu dem ba alhamdulilah lool légui lool yëpp passé nañu stade bobu légui donc li ci dess rek moy li ñuy wax ci manam phase exécution donc fofu lañu djublu légui fofu lañuy djublu légui mu am ñu am ci euh yaakar bu baax ak Gëmde ci année bi ñu nekk bi nii 2020 autorail bi li ñu wooyee dakaar Bamako ñu war a réhabiliter euh, raay yi jëm ci euh, Mali dinañ ci dinañ ci dinañ ko def mu pare train bi di doxaat euh, di doxaat dëkk bu mel ni Guinguinéo umpul kenn ne Guinguinéo moo doon deuxième gare ferroviaire u Sénégal après Thiès donc fii dëkku raay la fii raay moo dundal Guinguinéo bi raay bi taxawee Bobule dëkk bi soxé donc ñi ngi am yaakaar né ray bi bu ñëwaaté tamit dëkk bi dina donc loolu lañuy tamit ñu ci euh, yi ci dossier ndax ñun ñu dugal ñu ci handicap principal gëngi néw Nous enclavement Guinguinéo Guinguinéo dafa dé dëkk ont xamné dafa enclavé Nous ci xam nga donc bu tay autorail bi wara ñëwaat déjà ben handicap bobu rek mën nañu dinañu ko dindil dinañu dindil handicap bobu wesso lolu effectivement gëngi am amna déficit infrastructure déficit infrastructure bobu mën nañu tali yi war nañ ci liggéey am nañu déficit tamit euh, énergétique parce que ndax euh, tali principal gëngi Guinguinéo yi tay am nañu ci bëri yo xamné éclairage bi dess na am na benn boo xam ne man ñor na ma torop mooy déficit infrastructure sportive taw bi loolu loo xam ne euh, ñi ngi koy ñaxtu bu baax waaye xam nañu ne am nañu yaakaar tamit ne boobu yooyu yëpp ci biir euh, plan yi nga xam ne gouvernement bi tëral na ko kuréel yi nga xam ne gouvernement bi tëral na ko muy lu lépp lu jëm ci Promoville euh, ak beneen bu bu am solo bi bu tudd PACASEN dinañ ci am comme boo xam ne mun nañ ci développer infrastructure yooyu waaye bu ñu xoolee daal. Euh, autorail bi xam nañu ne bu ñëwé dina créer li ñu wax ci français un euh, cycle euh, vertueux ba nga xamné yenen euh comme comme dinañ mëna génn ci li nga xamné moy démarrage autorail bi